lan bikum gazu Sénégal bi léegi tey ñu sulli ko tàmbale koo jaay Allah ndax jumtuwaay yi ko war a sulli ngandum ponkalu maamu bato bu xam ay matériel yu bëri te garaaw yegsi na ci frontière u Sénégal ak Mauritanie ba ba tax réew mi yéen a kaay ne ah loolu de baax na l'observateur na ko faa lay loolu ñëw ngir sulli gaz bi moom la ñuy wax FPSO ñeenti weer la fiy def di xamal test laata ñuy tàmbali production maanaam génnee gaz bi Le Soleil yéen a leen war ngeen a gaaw sulli gaz beeg pétrole bi réew mi naat suqali ko am liggéey ndax suñ ndaw yi ay xale mineur boo demee île yi ba fekk leen ca centre ya sew seeram fay daw te lépp ndax bëgg a dem Espagne pour liggéey critique yéen a kaay na ko bul fàtte tamit dund gu cher gi nguur gu bees gi lañ ca digge woon ba léegi askan waa ngi koy xaar waa APR yi farandoor Macky Sall yi ne Sonko kay ak ñim àndal gouvernement bees fa ñu ko waxoon ñoom gouvernement fay bor bi nga xam ne la nguur gi yoral producteurs yi ci wàllu jiwu gerte gi rek yi ni mel le 10 mai moom la premier ministre Ousmane Sonko waxoon te ba léegi fayaguñ gaay indépendant yéen a kaay na ko voilà gis nga Ousmane Sonko moom ngay wax fañ koo tabb jox ko raaya bu mag bu ñuy wax lauréat trophée Miriam Makeba ndax bañkat bi mu doon moom usmaan Sonko fexe réewu Afrique yi nekk benn suqaliku génn ci loxo tubaab yi di ñu noot rek ak li mu def Sénégal looloo tax ñu tànn ko ci àdduna bi yëpp jox ko trophée bi ni mel leer lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne xàtteeb Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang coow li doxoon léegi tey nag lépp leer ñu xam fu dëgg gi féetee ndax cour des comptes fa hubbiwaat procès mbiru Prodac bi dossier ba la ñu ubbiwaat ngir yëfi leer Jean Pierre Senghor nga xam ne moo njëkk a nekk coordonnateur Prodac nee na man fi mu toll nii noppi naa ngir wax dëgg ji leeral yëf yi la leer yor yor yéen a wax ñu ko mooy maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye cour des comptes fa ko kepp fañ ko épinglé de ci yorin wu bon tappaleeg caxat-caxate xatalu réew mi diggante 2012 ba 2016 ay mbir yu garaaw yorin woo xam ko a kaay na benn rek ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay millions yoo xam ne fañ ko génne jox ko ñu ne yoo yaay ñoo xam ne fañ doon aji màkk te kenn identifié leen nag ñu ne déeta waaye te ay dépense la doon xamal ci ay société non identifié encore mu ne déeta fa doon fay sax ay avocat ci anam goo xam ne jaarut yoon info yéen a na ko soo demee ca maire bu Sindian fa ngay joom mi foofoo gën a garaaw ñoom wàllu suuf tappale mbuxum yu garaaw moom lañ bu Touba ka fa nekkoon maire Mame Balla Lo hee kooku fa xëdd kaaba goo xam ne fa jéggi dayo moom la xamal foofa seetal fa xam ab atelier maanaam dajee toog waxtaan buñ doon xamal foofa waaye xam nga lu mu wax fa bind ne ña bokkoon ca atelier ba juróom-ñetti nit la woon waaye kenn ku nekk bët bu set fukki kilo ceeb ak juróom nga doon lekk <laughs> maanaam fukki tonu ceeb moom la wax ne moom la jënd jox ko juróom-ñetti nit ñu lekk ko ci juróom-ñetti fan ay waaye ndaw sàmba ba tey libération na am na gëneen tooxi doone surfacturation bu am ca bañuy dragué ci brèche bu marché ba nekk ca diiwaanu ndar lu ëpp ñaari milliards gars yi fañ koo gonfale yokk ko ca facture ya dugal ko seen poos ya a gën a garaaw yëpp te Cheikh Dieng ma na problème de ndax la ko fa Mamour Diallo ah, yu baax ci ñoom ba jéggi dayo source ay yéen kaay na fale na gate kay ngandum ponkalu maamu gate nag moom la defal liggéeykat ya bokk na ca faa leen di wax Mamour Diallo la mu wax nee na la mu defal liggéeykatu ONAS ya bépp liggéeykatu ONAS buy takk jabar fanweeri junne lañ lay jox soo xamee doom ñu jox la fanweeri junne su sa jege génnee àdduna gaañoo ñu jox la juróom fukki junne su fekkee yow liggéeykat bi ci boppam yaa faatu génn àdduna génn wàllu million la ñu jox say mbokk te liggéeykat ya mën nañoo def près un million ba fukki million ak juróom nag liggéeykat ya duñ fay ndox juróom benn billet màkk ñu yokk ci jox la cinq cent mille ay quatre-vingts millions yoo xam ne laneen la ko tax a jóg ak yeneen millions yu du xaddu jeex yu mu defal liggéeykat ya noonu li fa garaaw daa mbóoj ne ki def nag li gën a garaaw lépp tooxi doon yi ngeen di wax Sénégal nii yépp ki nga xam ne moo ko jiite na Macky Sall ci boppam la ñu war a njëkk a jàpp yóbbu ko ci yoon ñu xàtte ko ndax fa def haute trahison jëf ju bon la fi def buñ ko jàpp nag waruñoo jàpp kenn lii la wax ca Walfadjri ba tax yéen kaay ba ne waa Pastef yi fi mu toll nii li ñuy wax contradiction moom lañ nemmeeku ginnaaw bu rapport Cour des comptes yi ca ñoom vox populi na neexut ba neexut waaye jafe-jafe suuf niñ yoree suñ suuf si gis nañ ay njaboot yoo xam ne fañ cee tasaaroo aw askan woo xam ne fañ cee féewaloo jafe-jafe wu mitt ci wàllu dund askan wi fa cee xam le quotidien yéen kaay moom fa xëy àddu ci wàllu politique bu tim réew ak wàllu diplomatie yeneen yi ni mel ak ba nga xam ne fañ ko ci xamaloon ngir xàll yoon jëm ci wàllu wi ni mel indépendant yéen kaay moom fa ñoo xamal na njiiti réew bu Rwanda Paul Kagame mi nemmeeku muy firndeel jëflante bu rafet diggante ñaari réew yi bés bi yéen na ko yëfi kay fa rafet ba nga xam ne ñoom ñaari président yi Bassirou Diomaye Faye ak Paul Kagame fa ñoo àndoon dem doon seetaan basket bi amoon diggante douane bu Sénégal ak équipe bu Rwanda bu Sénégal na moo leen mbuqi l'évidence yéen moom fa xamal ne liggéeyu esplanade fa gàmmoo ci Medina Baye liggéey ba fi mu toll nii léegi tey mu noppi ndax yegg na ci 80 moo ko wax ginnaaw Kaolack dara xamu fa kilifa ya defuñ fa tus askano fa ñoo sonn fa jot ngir ñu suqali Kaolack l'observateur moom fa ñoo xamal mbir mu garaaw ta yéeme ah. yow seetal benn xale bu góor daal fa xam jamaalee maanaam moroomu xale bu góoram boo xam ne fa ñoo bokk bëgg benn xale bu jigéen le xale bu góor ba xam nga nu def fa rocci paaka jam ray jamaalem ba ba mu faatu ñàkk ba kanam fa ngay génn ak xale bu jigéen bi waaw lu tax ngay génn ak moom xanaa xam man fa génn ak moom takkoo ko du sa jabar am naa ci droit ñu commencé xuloo rek ci la ko jamee mu dee yëf yaa nga amee ca HLM Ndakaaru <laughs> waa ma ne fa ngaa juum ñaari yoon ger rek koo xam ne takkoo ko warta tax ngay rey sa morom fa ngeen a waroon a taaj ndaw si ñu tëj la kaso fa ngay ndaw sa sa avenir yàqu su ko defee fa perte di perte la sec ba pare xay xenu la